ndax ilimaan bi nodd na ilimaan bi yow bi ngay bi ngay julli fekk na julli na depuis cinq heures de temps heure bi ngay bi ngay bëgg a julli mhm. neuf heures moom julli na munta ci tusubaar mhm. yow yaa ngi ko julli lan deux heures deux heures loo ko teree julli ci neuf parce que yëggoo woon ci waxtu wa mi ngoog bii itam da nga yëggatoo gëtoon ci bis bi mhm. waaye nag ci kaaba ga nga doon jëm bu fekkee kay condition bi mooy kaaba ga te kaaba ngay boo julli boo boo julli foo foo julli du ci kaaba gi. waaw lu tere nga ànd ak imaamu kaaba gi. bokkuñu heure. jeex na kon nag itam bokku leen bis. Hmm. yonent bi sallallahu daal dafa jàngale lu simple. Hmm. dafa ne bu ngeen ko gisee. Hmm. weer wa jeex na ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent. jàngale ko ca koor. bu ngeen ko gisul. nuage dox seen digganteeg moom in rumma aleykum bu leen nuage doxee seen digganteeg moom matal leen fanweer kon daal bu ma la déggee mbir mi ci gis weer la mais du ci ne buy taxawee arafaat rek déedéet kooku moom waa arafaat moom mun ta mun ñoo nekk royukaay mhm. ndax ñooñu tabaski waru leen mhm. ku ki warul dara mun mhm. ta nekk royukaay ca la muy jàngale ñooñ duñ duñu benn alaaji du rey tabaski benn benn sur les cinq millions ou sept millions yi fa taxaw kenn ci ñoom sañta kenn ci ñoom sañta or bi su Arafat te sunna la bu baax yonent bi daan ko or kenn ci ñoom sañu ko mhm. ndax yonent bi ba muy naan dafa yëkkati ndox ba ñëpp gis ko mhm. mu naan ci Arafat pour bu wax ni bis bii kat yéen bu leen ci woor mhm. te terewoon nag daf ko daan woor waaye foofa ñooñu moom duñ so suñ roy teef ci تبسكي ندخ نيوم بوكون تي تبسكي لول ليرنا مي لو تخ سينيغال سو ريجون بي نيوميت ام ني جولي اديوما ني ني جولي سامدي واو كاي لي تخ موي سي بو نجهك امنا لو ني واخ وحده المطالع في زو اورير ني بوك اي اور بوك كيكو تي جامونو غوفرنور moy fusion politique bu ma ko mënee tuddee wala wala union politique bu fekk orbite bi ben la politique bi duul ben le système le système mauritanien mhm. boo bëggoon a jiwé bis ba état ba wax mhm. ñu tej sa jàkka le système gambien amna ñu ko essayé mhm. xam nga ña ca bokk ci tarixa yi Sénégal dañ fa jema julli ku ko fa def ñu tej sa jàkka en tout cas surtout sur sur sur euh numta ci yaay jani waaw yaakaar naa ça continue. te dinañ ci sax ay imam. mi ngoog. Mhm. muy ñaar. Mhm. Mali la même chose. Mhm. ñooñu nag yow da ngay da ngay da ngay tëbaski da ngay tëbaskil président Gambie. wala da ngay tëbaskil président Mauritanie. <laughs> pour nga fekki leen ndax boo leen fekkee président nga fekki xamoo. Hmm. fekk yow imam ba. même bu ko imam bi waxee. il n'est pas indépendant. loolu tax nag foofu. il faut que ñu respecter ci réew mu nekk.